حمدا لمصعق القائل في محكم تنزيله وآياتي وآتي كل سعق أقه ثم الصلاة والسلام على فاتح رتقي قاتم أهل السبق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والأق ثم رضي الله تعالى عن قطب الأبر قطب المكتوم تاج العارفين خوز زمداني أبي الأباسي الشمس الباسقة في الأفق المكونات لاستنارات كل سلام أحمد بن محمد التجاني بعد ذلك أخوة الإيمان والإسلام والعقيدة نحييكم جميعا بأحسن التجوالها ألا وهي أقول لكل واحد إن السلام ورحمة والبركة والمنة عليكم وعلى جميع المسلمين موكي تنسبكتار yi nga xamante سيطان تي سيد seetaan ci site bii di M ginnaaw bi ñu leen nuyoo ziar leen ci weeru màgg wii di weeru koor di leen baal àq waaye di baal àq di nuyu ñëpp koo xamante ne yaa ngi ñuy seetaan di ñu bàyyi xel di wax rek ne bala ñoo sori ah, di sàkkuwaat ci mbokk yi pour ñu mën a abonné ci seen bi nga xamante ne mooy seen bii ñu nekk ginnaaw loolu ñu ñëw di laayante biir ñun ak yéen ci loo xamante ne moo lëmbe jamono. bëri lool ci jamono tey jii rawatina xale yi te bu daganul yaakaar nañ ne dagan na waaye daganul benn alxuraan rek laa indi muy firndeel ne du dagan te du mas a ginnaaw bi ñu ne auzu billahi min sheytaani rajim rahmaani rahim yaa ayyuha alladina amanu innama alxamru wal maysiru wal amzaabu wal aslaamu rijisun min amali shaytaane fajtanibu laalakum tuflixoona yàlla nee yéen ñi gëm yàlla kon ki gëm yàlla lay waxat kon yow mi may déglu di ma seetaan yàlla ki gëm la wax ki gëmul yàlla nag bokkoo ci ñu ne ko waa yàlla ki gëm yàlla lan moo xew yàlla ne innamal xamru loolu ñu naan sàngara yàlla nee na sàngara suma tudd nga xamante ne ku ko jëfandikoo tàqali ko sa xel nga nekkaat beneen nit yàlla nee na moyul wal maysiru wal anzab wal aslaam rijisun min amali sheytaane fajtanibu yàlla nee sàngara boon kart yoote lido mbooleem xeet yi ma tudd laa ne yàlla nee na jëfu seytaane la ñu ne ko ah yàlla kon nañu def mu ne bay leen ko faj tani boobu na ngeen ko sori yàlla bu faj tani boobu mooy bu leen ko def ndax yàlla nu lay nunu mooy nunu mooy sens waxam yàlla jant bu ne faj tani boobu rek mooy sori leen ko bu leen ko laal bu leen ko jege kon da ngay dégg ne yow mi damaa nekk ci koor di dido boo jàppee ne dido bi ngay def dagan na da nax sa bopp daganu am ku ne ma li doree dagan moo ko lépp loo xamante ne boo ca nekkee day jur waxtu julli jot doo ko def waxuma la waxtu julli jot sax nga def ko mais werante ba ci am léeg-léeg ci diggante jàpp naa la jàppoo léeg-léeg ka jël ndaare xolam neex mu jur ab noonoo loola dong day tax mu araam kon yow mii li do bu waxuma la bëccëgu weeru koor mais bu dul bëccëgu weeru koor sax daganut du ma ko ci koor kese lépp loo xamante su ko ay nit di def tay jur ak ni sen digeunte ndax li do pigal ndara ñaar yoon bu la ko bu la ko waxut ñam sekk ak groupe bari ko def amna lu ñu japp ak sen xol dara dem ba indi xuloo dem ba indi werante dem ba indi nono si loola dañ ko jar ko yow mi na li do ci weer wi li do nang ko bayyi daganu ci alam la bokku yoote dafa araam dam dafa araam ñoom ñëpp daal umul xabaayis la waaye nag nday njawteef yi mooy sàngara benn waaye nee na ma oustaz carte bi léegi de dafa yomb ma ne ko ba mu yombee la àddina bi yàqu munuma léegi ma ngay carte sa biir kër di carte sa biir ne kenn du la yëg ma ne ko boobu la boobu la àddina tukki mu ne ma xbet mën a ko def araam léegi diine yi ñi ngi kat seen bir kër te nit ñi bàyyiwuñ ci xel kon responsable la ci kilifa yi ñu xol saytu njaboot ci ndax expert ci xeeti kat yi la dugg te nit ñi ñu ngi koy def dafa araam ndax kat la ben way na mo oustaz kat gi legi mom dafa yomb ndax da ngay toog sa kaw lool di kenn du la xamal dara ma ne ko boobu la nag boobu la mbon yaat na moom <laughs> boobu la mbon boobu la mbon boobu la mbon tasaaroo toog sa biiram néeg nga ne doomu julli laa julli moo ma ñor yàlla laa jaamu ba pare soo jullee ba sëlmal yaa ngay xool ba xam yow jàpp nga naar wala jàppoo naar bi dañu waaye ne naar bi yëkk naqaree jàpp man na nga xaw ma neex naa jàpp xaw ma naqari naa jàpp da waaye lu ci mën a xew ku ca nekk yaa ngi ci lu araam ku koy def yaa ngi aram ndax carte la moom nga jël sa xaalis dem ca marché ba di carte mooy am kon yow mi nga xamante ne yaa ma doon laaj ci lido ndax dagan na wala daganul daganul waaye exibet daganul te du dagan mbokk yi ñu bàyyi xel ne bi ñu yàlla bindee li ñu bind mooy lan ñu bàyyi ko xel kon yow mi nga xamante ne yaa ngi doon def ba ko ndax du dagan lido du mos a dagan carte du mos a dagan naan sàngar du mos a dagan la araamoon démb ba léegi day araam la yàlla araamaloon démb nit mënu ko daganal ak koo mën a doon ak foo mën a bokk ak ku la mën a jur ndax yàlla ci boppam noppi na démb tey soo ko ñëw te nag maa farat naa fi kitaabi min shay'in benn sëkk yàlla nee na alquran bii ma jox Seydina Muhammad mu nek 6666 aya nek 114 saar yàlla leen doon sekk wëcc ma ci dara kon mbokk yi loolu ñu indiloon ci layante bi ci walu li diggante carte ak sangara en tout cas dal mom li am ba des ku bëgg xam mm, fi ñu jëm suba top lañu ci seen bi di M-Media TV insha allah rabbi suba jamm ci heure bii ñu ñëwaat ak yeen ci benen waxtaan وبوكو تكبير واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين